et d'écoute sur les... ayca jërë ngeen euh, jëf il est 11h30 à Paris euh, ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax yéen a ngi euh, seen journal des faits de xalaas di kontaan ci euh, France yi ñuy déglu ñëpp ak sénégalais yi nekk biir France di bég ci ñoom bu baax a baax a baax yàlla yàlla defal leen jàmm yàlla defal képp rek koo xam ne yaa ngi ñuy bàyyi xel priorité Paris di ànd ci xalaas bi ak Mamadou Mohamed Ndiaye ak euh, Passepartout ñu ngi leen di kontaanee bu baax a baax a baax.

Je passe le bonjour à tous les Français et <laughs> euh, aux Sénégalais euh, vivant à Paris euh, ou bien en Europe. Donc, vous êtes bien dans votre journal des faits divers Khalas et c'est sur RFM 94.0 donc priorité européenne européen et les Africains qui vivent en Europe donc on vous passe le bonjour et on vous souhaite une très bonne journée euh, Mohamed vous avez la parole <laughs> barki téere maam yàlla yalla na la yàlla la fa cap yalla na la yàlla sàmm nuyu naa la nuyu waa Sénégal nuyu ñi ànd ak ñun suñu journal fait divers di xalaas ñi ngi ñaanal réew mi yëpp jàmmoo jaajëf yàlla na jàmm yàgg passe partout jaajëf la parisien maa ngi lay ziar bu baax on est là on est là di ziar Ndiaye la frère <laughs> di ziar Ndiaye du nuyu auditeur rek internet di ziar ñëpp aja eh, Ndiaye lu partenaire yi wax. dañu dooree Optique Vision Plus Sénégal dama leen di fàttali ne waa Optique Vision Plus Sénégal ginnaaw showroom bu mag bi ubbi fii ci Dakar ginnaaw boutique bi ñu ubbi Kër Mbaye Fall ginnaaw boutique. Optique Vision Plus Sénégal biñu ou ubbi Mbour ak boutique biñu ou ubbi Touba ñi ngi jëm Saint-Louis Saint-Louis dañ fay ubbi boutique Optique Vision Plus Sénégal ngir kon gëna jégué askan wi jaratul ñuy ñëw Dakar jaratul ñuy commandé sen ay lunettes wala accessoire lunettes bitim rew yéen ñi dëkk Ndar xam leen né le 7 dinañ leen ubbil ben boutique Optique Vision Plus Sénégal avenue Moustapha Gueye fofu lañu koy def mais également day and ak euh, consultation médicale gratuite pendant trois jours ñetti fan yo xamné bu ngeen démé ci boutique bu bess Optique Vision Plus Sénégal bi nek euh, Saint-Louis dinañ leen consulter teel sen ay beut accompagner len conseiller len ci lu ngeen dul fay dara le 13 ñu jëm Louga ubbi fa benen boutique Optivision Plus Sénégal quartier Santhiaba Sud fa lañ koy def ak ay journée consultation médicale gratuite 13 ba le 16 loolu la Optique Vision Plus Sénégal indi mbaax ma len koy fatali bu wesso yu baax yi ñu xam ci mom mudi boutique du lunette la bo xamne mo tek tank ci walu lunette fi ci réew mi ndax sen ay lunettes yu garantie lunettes yu baax lunettes yu accessible mais également lunettes yu moderne te rafet benen partenaire ci xalaas moo di marque téléphone bu garaaw bii di Mion def ay preuve am ci àdduna bi yépp ñëw fii ci Sénégal waa Sénégal bëggal ko seen bopp ndax lu ñuy wut ci téléphone rek am ci téléphone Mion yi mu am variété téléphone yu bari te bokkul Mion am Android am téléphone simple am na tablette Mion S11 Android la di jar soixante mille Hot 2 moom Android la di jar trente cinq am beneen bu ñu naan Q8 plus vingt cinq mille lay jar bëgg ñëpp am téléphone te téléphone Mion li tax ma leen koy conseiller mooy benn risque amu ci boo ko pendant un an dañ la koy topal garantie la ko ak service après vente bo xamné ne lu la jaaxal ci téléphone bi rek bo démé Grand Yoff église euh, en face église Saint-Paul service après vente bo mi ngi leen fay xaar pour téléphone wala tablette Mion téléphone euh, bu service après vente bi 33 827 37 96 ababakar bala ñuy sori ou ñi nga xamante ji euh, ndox yi fi jotta wacc def daf leen jugal ci inondation yalla na doon ndoxum ndoxum ndoxum jamm mhm. et puis muy fofu di fenen yàll na yàll na yàlla bu ñu dund inondation yàlla bu ñu dund inondation xam naa ni amaguma woon euh, occasion pour wax ci mais waajur yi nga xam ne ñoo nekk Tivaouane mhm. maa ngi ñaan yàlla may leen xolu muñ waaw xale yi yeggale seen enfance ci aljana yi gën a kawe waajur yi yàlla na yàlla may leen xolu muñ ba noppi ñu dimbali ñu ci hôpitaux yi njaay bu mhm. baax a baax a mhm. gën cee bàyyiwaat xel gën a xool nuñ ko organiser ba yu bari yi fay xew xam nga nit du am naqar ba pare nga ciy dolli yeneen xam nga abaa fot ci ndab fotaat ci du yàkkamti bëgg lekk lii njëkkoon naa am mm-hmm. Linguère mm-hmm. amaana buñ ci jàngoon defaat révision ci ci ci ci ci hôpitaux yi xool li ko war a mën a indi xëy na duñu dund lii xëy na nag laa wax. Mm-hmm. parce que lu yàlla di dogal moom dogal na ko ba pare. mais daal nañu góorlu képp koo xamante ne ji war nga cee def. parce que affaire bi yamu rekk ci état bi. Mhm. yamu rekk ci état bi. képp koo xamante ne ji war nga cee def nga def ci taxaw ci parce que metti na boo amee doom di nga xam ne metti na. Mhm. boo ëmbee ba wasin di nga xam ne metti mhm. gis doomu aadama koo xamante ne ji xamagul dara ba dara booloo jeex ñu koy jël di ko denc ci sëg. ci loo xamante ne ji maanaam ci faatu wu ñaaw. wu metti plutôt loolu metti na ci xol. dëgg la on a nag ay mesures. jële fi ministre bi defi yooyu yëpp ñu baal ma de mais man sama gis-gis du ko saafara. Hmm. sama gis-gis du ko saafara. xëy na nag ñoom ñi jiite am na yuñ maîtriser yoo xam ne ñun maîtriser wuñ ko. Hmm. mais daal hôpital yi réew mi dañ ko war a def priorité. surtout hôpital yi nañ ko def priorité. abaa ñaar ñoo gën a metti ci at ñoo gën a jafe ci senegal ñaar. Hmm. xiif am loo lekk. feebar bëgg a mën a faju. dëgg la de dëgg la de loolu moom kuñ ci dimbali moom. yàlla rek lan lay bàyyi. ah baax na mooy li ñaay wax léegi l'histoire se répète et se ressemble. daaw ci waxtu wi li nga la woon sa à dire que am na am na ñaar nag mm-hmm. am na yu minime yoo xamante ne nag dafa mun mënta ñàkk ci mille 2022 ay détecteur d'incendie ay ay extincteur ñu naan ay set yi moo baax deux yi baaxul sa à dire en fait daf ci am yoo xamante ni euh, liñ naan préalable noonu lañ koy waxee mm-hmm. moo war a jiitu bu daal bu mbir xewee nga jàngat fekk lépp normal la ñu ne yàlla mais bu mbir xewee ñëw fekkoo fa dara lu normal te bu nit ñi waxee ñoom ñu génn kenn du wax y' a problème. Hmm? Sénégal lijjanti ko dafa metti parce que nit dèjà yow da ngay benn mbir dafay xew yoon jug taxaw nga jóg ne taxaw nga jóg taxaw ne pourquoi yoon taxaw te bu dalee ci feneen ñu yoon jug taxaw comme ñëpp dafa naqaree lijjanti de. ku juum rek la ñuy teg ci yoon mais bu bu ñu jeng rek. waaw ah. bu ñu jeng rek na équilibré. voilà bu ñu jeng rek. en tout cas daal lañ bàyyi yoon mu def liggéeyam. ay ay ay taxaw fi di grève ak di tëju hôpital ak yooyu. da ko jarul nañ bàyyoon def liggéeyam. Hmm? yàlla baax na ñoom ñi ci santé bi day war nañoo war nañoo aawlu nañ jamono ci coow loo leen dégg bañ ni nii rek nga déggaat leen ci leneen. yàlla yàlla sàmm leen rek. Ndiaye am na beneen xibaar bu ma bu ma jot tey suba. Hmm. Hmm. maa ngi ko doon vérifier sànq benn benn accident bu am fii ci côté IASO. Wakaam bi ba ñaar ñett ñàkk seen bakkan. moto la ñu yoroon. kenn ku jigen ak kenn ku góor ku ku jigen ki d'après xibaar yi ñu jot mi ngi dekkon euh, Pikine su joomu ku góor ki mo dekkon Maris ñom ñaar dañu ñak seen bakkan tay ji suba wala eh. ci buntu hôpital Iyasou ci moto lañ nekkon ñom ñaar waaw ñu nekkon ci moto bi waaw dal na leen yàlla yërëm amiin xanaa leen dem ci xalaas bi ñeek Ndiaye nday manilam Tamba lañ dem musa amul geta dafa nek congé nak congé dafa nek permission Ndiaye Tamba. Hmm. Ndeye Mané bàyyi mi ngi ci kaso bi ñu condamné woon ko dix ans. Hmm. mu def appel. kan Ndeye Mané bàyyi Ndeye Mané. la ko fa yóbbu nag. Hmm. ci la ñu wax ñu ne bàyyi ji moo doon sàkku Ndeye Mané. ko doon violé ci la Ndeye wax. ñu jugé ko. condamné ko condamné ko dix ans ñoom ñu def appel fi ñu nekk nag bàyyi jaa ngi def grève de la faim ca kaso ba. léegi nag waa kër ga dañoo jóg ne li Ndeye Mané wax amul. Mhm. parce que mënta nekk ci kër gi parce que papa ji macha allah njaboot na am na fukki doom ak juróom-ñett ñëpp ci biir kër gi paa am na ñetti jabar mhm. Ndeye Mané amul néeg ci biir kër gi su papa ji aayee ci aaw bi moom ci ñaareel lay fanaan. Ndeye Mané waaw su aayee ci ñaareel bi Ndeye Mané fanaan ci ñetteel bi. noonu noonu noonu ak yeneen yoo xamante ne daal. ki nga xam ne moom mooy ñaareelu papa ji parce que yaay Ndeye Maane moom fase nañ ko dem na. Hmm. ci histoire bi. waaw ci problème bi. waaw mais ki dal limu expliquer expliqué dal mu lol mu loolu nekk ci mu mënul nekk ci kër gi té bi mbiri xewé ñom ki ñu yëgu ko ci dañu xey xey rek bi wala nee jàpp police Ndeye Maane porte plainte. avant ñuy sori ñu ma. Hmm. bon ci ñima ko sañé wax lu tok guru Sénégal bëgg jabar yu bari <laughs> damay mais Ndiaye yow. non non xoolal yow. bi da nga yóbbuwaat ci sunu maam yi kon. <laughs> waaw mais dëgguma la ci ci ma ko ci ñi ma ko sañ wax. loolu mooy maanaam moom <laughs> jéggalu nga ci ñi nga xamante ne ji kilifa lañu ci yow ba pare opté pour lool. ba pare nga jéggalu ustaas yi ak waaraate yeeg. dégg ma la wax ci ñi ma ko sañ a wax laa ah. man di wax. man kay man ku ma ko sañ wax moom boolew ma la ci wax ji. <gasps> mais xoolal kii li mu wax nee na bu papa ji aayee ci aaw bi booy bi day génn. dem ci ñaareel ba fanaan fa ah. mu aaye ci ñaareel ba mu dem ci ñetteel ba fanaan fa ça veut que moom fat nay jabaram mhm. fàttey doomam te kum ci mën di doon sa doom moo war a doon sa priorité maanaam bala ngay wut feneen sa say doom moom nañu am néeg bu ñuy fanaan yaa ngi ci ko mën d'abord kay waaw mais lu tax lu wax dafa laaj dégg waaw mais léegi yow boo boo ko mënul mhm. boo ko mënul mhm. looy duggee ci njabeelu moom laay wax yaa ngi ci ki ko mën xam naa ni man ak ñi lay déglu ñëpp ñu ngi lay soog a dégg man mii maa ngi lay a dégg yaa ngi ci ki ko mën mhm. waa ji am na ko xam ne 87 jabar la am ne demal Zaria <laughs> nga ni demal ci xalaas gi ñu déglu bi mooy problème mu Abdoulaam bim amoon ak doomam bu jigéen Ndeye maane laa man jabaram laa man maa nekk lam problème bi affaire de viol leen ko doon toppee daaw jéeg 2020 2020 la amoon. dañ ko jiiñ ne moom moo violé doomam bu jur. waa dañ ko jiiñoon ne moom moo violé doomam bu jigéen ci 2020 bi la woon. ñun nag ñu ngi woon ci kër gi ñun man maa nekkoon ñaareelam bi yaayu xale bu jigéen bi mu ngi woon ci kër gi moom it moo nekk aawo bi am na beneen jabar muy ñetteelam moom it mu ngi woon ci kër gi ñun waa kër gi ñu ñëpp ñu ngi fi woon ak doomam yi am na dix-huit doom ñu ngi woon fii ak rakkam bu góor ak jabaru rakkam bu góor ak ay jarbaatam ñu ngi woon ci kër gi daanaka daal lu mat vingt personnes wala lu ko ëpp ñu ngi woon ci kër gi léegi nag biñ ko defee lool police jàpp ko ñu jugé ko tribunal bu Tamba ñu condamné ko dix ans après ñun ñu defoon recours njabootam gi defoon recours ak avocat mi appel bi jàll léegi nag ñu juge ko cour d'appel bu Kaolack amoon neen fa ay audience renvoyé bu bëri woon na waaye mujjoon nee na am jugement juge woon neen ko ba pare léegi biñ ko juge ba pare ñu ne délibéré ñu dem le vingt et ñu joxaat ñu le vingt et un bi ñu demaat mais biñ demaatee ba léegi gars yi waxuñu woon dara juge bi waxaatu wutoon dara dana woon dossier yi day ñëwaat Tamba d'accord léegi léegi kan moo ko jiñ viol bi doom doom ji moom moo taxaw jiñ ko wala wala nu mu demee noonu. waaw doom ji waaye doom ji xam nga ñun waxee wu ko si kër gi dafa génnoon kër gi ànd ak tantam dem si benn association wax ko fa waa association boobu yaakaar naa ñoo jox procureur dossier bi ñoom ñoo ci toppoon ñoom ñoo si nekkoon ñun daal fii leen toog si kër gi benn si man ak yaayam yëpp papaam moo ñu woo téléphone jour ajjuma la woon mooy ajjuma ji njëkkoon si weeru kooru 2020 bi. mu wooñu mu ne ñu moom mu ngi police dañ koo jàpp ñu ne ko lan moo xew looy def police mu ne ndeymaane moom mu fi indi yaay ji si boppam nee na ko moom kan mooy ndeymaane mu ne ko sama doom bu jigéen bi kanaa suñ doom mu ne ko ah mu ne ko ah, man ak yaay ji ñoo jiitlante ñu dem police ñu fekk fa papa ji ñun problème bi foofu leen ko yégee man ak yaayam ak ñu ñi nekkoon ci kër gi yëpp problème bi foofu leen ko yégee ñun police leen ko yégee. xale bi ñaata la xale bi 2001 la loolu mu ngi war a nekk vingt SRM bi waaw 2001 le 14 juin yaakaar naa 2001. léegi moom bi mu bi mu waxee loolu. Mhm. ci ban anam la ko jiiñe da ko doon def ci biir kër gi wala da ko da ko yóbbu fenn wala parce que li nga wax ni ci kër gi comme dafa bëri nit. Mhm. léegi moom nan lan la expliqué ci ci tribunal ba. waaw loolu moo jaaxal ñëpp yóbbu ko fenn dañu fi si biir kër gi la amee te kër goo xam ne comme li ma la wax li fi nekk daanaka ëpp na ñaar fukki nit ah ñun de jàppuñ ne dëgg la ñun waa kër gi parce que ñun sax yëgee wuñ ko si kër gi ñun police leen ko yëgee waa kër gi ah, xale bu jigéen bi amul néeg néeg yaayam lay tëdd wala sama néeg wala néeg ñetteelu papaam bi kon su ma ayee néeg yaayam lay tëdd yaayam ayee sama néeg lay tëdd ah, kon ñun waa kër gi ñun de jàppuñ ne bu amee ci kër gi it ñun gëmuñ ne dëgg la ndax yëguñu ko ñun waa kër gi ñun kenn yëgul ko si même biñ demee police waa police ñëwuñ fi enquête uñ fi yónni yabaluñ fi ndaw waxuñ ñuy dara ñu ni dem neen police teewee neen jugement bi mais kenn laajuñu kenn waxul ñu dara léegi nag ci leen dem déglu ñu atte ko jugé ko kon ne ko ñu toppaat si di daw si dossier bi léegi nag Ndiaye hmm. dossier bi man duma ma juge hmm ma ndax amna wala amul hmm mais ñom ñoo ñu contacté parce que daf nañ conférence de presse fo ci Tamba ñoom hmm liñu japp d'abord moy xalé bi wérul ñom wa ñom wa kër gi wa parce que nenañ yaay xalé bi dafa am problème bop hmm ba danaa ñëw fii hôpital psychiatre bu bu tiaroy dal di fajo fajo bobu sax nak mo indi digënté ku góor ki ak ñaaral bi ni ci lañ xamante parce que ay mbokk lañ ñoom ñëpp mais kii moo doon dalal yaay ji mu daan ñëw fii di faju paa bi ñëw takk ko waaw ñu njort ne ñu njort ne feebar ba nekkoon ci yaay ja moo ñëw ci xale bi njort waaw njort paa bi joxoon na yaay ji xaalis pour ñu indi xale bi fii ci hôpital bi xool ko yaay ji encaissé na xaalis beeg paas bi yëpp demul mm-hmm. léegi nag am leen lu seetlu ne ci biir ndaw si mu ne mm. xale yu mos na jote jote woon nag papam ba avant lii di xew juste avant jote woon nañu ci ay problème mu parce que paa bi portable lay jaay mhm. ndax loolu moo indi xale bi jiñ ko loolu wala du loolu yàlla ah, d'accord mais euh, passe waaw justice du ay caaxaan mhm. justice mhm. bu tegoo ci yoon nag laa wax bu tegoo ci yoon du ay caaxaan ça veut dire que bu ñuy tëj paa bi dana ma dana ma jaaxal lool ñu àtte ko enquête ci ay njort jàpp ko ci ay njort tëj ko ci ay njort def de parce que lo fekkewul mom motax euh, ndax boy, bi dafa jël feebaru yaay hmm. dafa jël yépp hmm. comme justice àtte ko ba ko. Hmm. liñu ba fek ñuy def appel ñukoy appel, ba ñukoy ragal ginnaawam. nous koy justice na def. mais ci biir wax ji. dafa am ñaar yu ma ci yu ma ci yu ma ci bi femme bi nee na ci jamonoy weeru koor bi la. Hmm. ça veut dire que yàggul. Hmm. waaw lu tax réew moo xamante ne jii walla boog viol yi par degré la. non da nga fiy dégg coowal viol yu yàgg kenn waa tax wax la coowal viol yu yàgg kenn du ci wax. waaw 2020 wax 2020. dégg fi coowal viol loo xam ne démb démb la ñu taf tafee ko jugé ko mu jeex. ah may laaj ndax xanaa kon viol yi moom par degré la ci réew mi. est que du enquête beneen bi ci mooy. Hmm. wax na lu garaaw loo xamante ne jii kuy borom kër am ay doom war nga koo sóor. xale boo xam ne bu tayee fii lay fanaane suba fële lay fanaane ginnaaw suba fële lay fanaane foo ko may sëy mu dellu si waat parce que sta amul xamul amu ci suñu doom yi lu ci bari li leen manqué mooy assurance mhm. te fii lay tàmbale xale boo xamante ne jii ci ndawam nga koy jàngale ne day neex a yëkkati mhm. maanaam jàppul ci dara ci ndawam lay ja la nga koy wane ne day neex a yëkkati maanaam dëgërul. Hmm. ba keroog muy faatu muy sàngoo suuf du dëgër. Euh, amul assurance. chaque jour moo wax ko Abba gone boo ko doom boo ko juree. li nga hmm. njëkk a def ci boppam mooy foo nekk yaa fa gën. Hmm. bon ki gën nag yàlla ko xam. mais yow loolu ngay def ci boppam. mais imagine toi xale bu jigéen xaw ma ndax paa def liñ koy wax xaw ma moo ko deful mais problème bi mooy gëw ma ne yoon dina àtte ci ay njort. waaye li muy def ni kep ko xamne yang koy def xamal ne yaangi sank sa ak njabot mais nag Ndiaye am na lu ñent ci erreur de. xam nga Ndiaye non bari na kay loolu kay xam nga exemple Ndiaye. Ah. par exemple tay jini nga xey xey rek wo sa wa keur japp arrêté nañ ma lu xew sama doom mo jëm viol tay jii bu nekkon tane lu normal xeyna dinañ ñew entendre wa keur gi. xool configuration kër gi est-ce que lu fa mën a nekk la wala lu fa mënta nekk la. yow parce que yow xam information bi nga yor nii ku la ko jox. waaw mais yow da ngaa seetal paa bi ba mu set. déedéet non non seetal ma ko seetal ma ko de xaaral xaaral abaa seetal ma ko fii toog nañ fi fii abaa toog nañ fii comme ni xale bi di di fanaan ci kër tante ci néegu tante yooyu noonu xale bu jigéen bi fanaan ak yaayam ci biir néeg papa ji di ko sàkku ci biir néeg bi loolu kenn dindiwu ko mhm. mais dama ne dama ne bu fekkente ni li ñu wax noonu la demee est-ce que amul tuuti lu ñu patam patamee wala yooyu bu dee ni mu wax noonu la demee. enquête kat yi ndaw euh, si pareegul de mais enquête kat yi ci ay fee la ñuy de. ndaw si pareegul de. kuñ téye rek c'est parce am na lu ñaaw ñu jot ci ñoom wala am na lu ñu yaakaar ci yow. ma ne pareegul de. nañ déglu ñi fi ñaaw jot téye wuñ ne bari ñu dem. ana yaayam moom yaayam ana moom. yaayam mu ngi woon fii si kër gi waaye fan yi dafa dem Saalum ñun affaire bi ci si làmmeñu papaam leen ko déggé xalé bu jigen bi bimu génné fi di dem police ma ngi dem marché jëndi dal lañu wax man mi bokko na ci ñim takku dama ay dem marché jëmd dal ndax këru famille leen man yaayam sax sama bàjjan la ñu ñoo bokk benn famille leen ñoo bokk benn ëttu buñ juddoo li la ma wax du def luma ma yëgut du wax luma ma yëgut mais li mom ñun yëguñu ko. léegi moom ñu ñu benn kayit bi wala ne egg nañ ci mom wala yoy indiwul benn kayit man de jugement bi am Tamba fii c'est fekkee naa ko biñ def recours biñ demee kaw la gi jugement ba fekkee naa ko amul benn këyit buñ wax ne bii moo jóge hôpital certificat médical amul benn këyit buy wane na dëgg la papam yegg na si kawam même moom yaayam si boppam juge bi laaj na ko mu ne ko ndax da nga leen a gis mu ne ko déedéet mu ko dafa am ku ko fekkee wax la ko mu ne ko déedéet gisuma ko te kenn ñëwul ci man ne ma gis naa ko moom papa te papaam ak doomam bu jigéen ma suñoo ànd tukki mom la gëna am ci doom bu mag taawam bu goor bi 2000 2000 la juddu lan 2000 mu ngi fi taala taala la tuddu moo mag ndeymaane ndeymaane moo topp si taala deux mille un la juddu liñ magantee faju dara ñoom ñep aaw bi moy seen yaay mais ñoom ñep sama kanam leen magge bi may sey ci si kër gi xalé bu 5 ans la am ndeymaane mo ma lay wax léegi sa borom kër mom lan la wax ci lolu wa sama borom kër lim wax moy mom yëgul tiinul moom dafa waxoon sax ne ndeymaane dafa am dépression ndax yenn yi su koy nit di wax dafa feebar parce que yaayam dafa feebar moom ndey dafa feebaroon ba mu ngi doon fajoo si cicatrice bu mbaaw foofu la doon dem di jël rendez-vous di na di fa fajoo su ma yeboone sax sëyam ak sa papam moom gannaaw yàlla feebaru yaayam moo tax man sama diggante ak sama borom kër yàlla dogal gannaaw yàlla bokk na ci li tax kooku takk ma ndax dafa ñëwoon foofu indi ndeymaane mii boobu mu ngi bootu mu feebar ma jàppale ko ndax suñu bokkale sama kër nijaay la nekkoon sama nijaay mooy papaay sama jëkkër foofu leen ko indi woon bi mu ko fa indee man su ma wàccaan xale bi daf maa taxoon maa ko daan ruyal muy naan wala ma koy lett yaayam nag bi mu ñibsee ba am tane xam nga nit ku feebar léeg-léeg da ngay bàyyi xel yenn yi mu ñëw nag ne ko laam su ma sañoon nga dem takk xadi ndax jàppale na ma yërëm na ma ni ma nekkee nii su ma amul ku ma comprendre euh, su ma nar a wujje day métti te faaw nga takk jabar mënoo continuer nii si la laam ñëw waxal sama ñoom yaay ci laa ñëw si si laa ñëw si kër gi bi ma ñëw boobu Ndeye mu ngi nekk lu ndaw mu ngi am cinq am benn rakkam muy Omar loolu su ma juumul 2005 la 2005 la ma la am takk. xale bu jigéen moom ci côté comportement nan la mel parce que ku tëb tëb diñ sa papa viol moom xëy na war nga am benn comportement bu xaw a kii de. waaw man de man ak moom ak papam mosuma gis ñu am problème. Sudul fan yooyu nonu ñom amoon len problème problème biñ ñu ñun man mi xalé bi jugen di ñëw na ci ñuko doon jubaleeg papam ci la bok mais du affaireu viol papam affaireu place bala dafa waccion dem placeu papam am ben infirmière bu papam jaayon téléphone téléphone bi waji ji mu ne copie la mom da ko bëgg changer ci si liñ netali ñom si kër gi ñun do leen yek ñun man mi bokkona ci si doon arranger légi bimu ñëwé papam ne kon euh, mu ñëw papam si place bi fekk mu si bureau bi mu woko ko téléphone mu ne ko Euh, infirmière bi nga jaayoon portable ñëw na mu ne da koo bëgg a changé ndax bii copie la du original original la bëgg mu ne ko ah, léegi yebal leen ko sama bureau mu ñëw ma waxtaan ak moom ma wax ko lu muy teg ñu mën koo def ndax moom Euh, moo yore maison des portables bi nekk Tamba day jaay téléphone léegi na si la ko rakk papam bi woowee papam expliqué ko comme li ma la wax nii léegi na mu ne ko kan moo nekk foofu mu ne ko amaat da day julli mu ne ko ndeymaane mu ngi foofu mu ne ko waaw mu ne ko wax ko mu indi ko papam mu ne bi mu ñëwee ba jug buntu néeg bi mu joxoñ ko ko waa ji di laajte xale bu jigéen bi xam naa yàkkamti dëpp dem ñibbi si place bi léegi na papam ne ko yow lu tax ndeymaane indiwu la mu laaj ko infirmière mu ne ko moom kay daf maa joxoñ rek taman xàmmeewu ma fii léegi nag bi mu wàccee mu ñëw coowee Ndeye Mané mu ne ko yow su ma la booleeg nit ne ko nga indi ko sama bureau da nga kaa indi waaye waroo koo ngeen ngeen rek ngeen def da ngeen a mën nit te kii kilifa la mook papaam ñu coow si ñu coow si affaire boobu ci sa mu ne ah sama papa de daf maa mere yaaxa di damaa bëggoon nga gunge ma ñu dem ma tuuba ko ma ko loolu kay amul mere moom def nga dara wax na la ko kay coow bi loolu jeex na kay jaru mu ne ma sama papa suba ba tey su ko nuyoo duma wax dara dafa dafa mel ni daf maa mere ko neen dem ñu ànd ñëw si jàkka si kër gi fi ñuy jullee def jàkk man ak mom ak yaayam xale bu jigen bi ndeymaane si boppam ma ne ko lam yow ki sa dom la kay def na lu duwut yoon jubanti nga ko lool kay jarul leneen mu ne ma waa dëgg la kay way xam nga xale so len yaru ba wal len ne len liñ def du deug mën na mën leen ci continuer di def leneen te man bugguma yor dom muy def na ko su duno wala muy yaradi ko wala muy ñàkkee nit kersa sa ne ko lool kay deug la mu ne na man pare naa si ba yàgg meere ma pare naa si depuis démb ma wax ko ko lii wax ñun ci kër gi problème bima ma man man lila fekke te ce leen ci kër gi affaire viol bi ñun ko jamono ji bala ngay information hmm. de source sûre hmm. bloc opératoire bu hôpital Dantec hmm. dafa am coupe-circuit ba jamono ji intervention chirurgicale yépp lañu annulé du incendie nak waye courant fa amatul sur qui bloc opératoire hôpital Dantec. Ndiaye nit ñi légui ndax buñ février duñ toog seen kër. waaw <laughs> ah, mais fi ngay dem pour faju sa waye bu dang fay dem pour fatou euh, c'est compliqué hein? ah. mais ñu dimbali ci hôpitaux yi quand même. nee naa leen keroog affaire du problème nit problème système là. système santé Sénégal lañu wara changer lañu wara restaurer xawma réinitialiser. formaté ko teg ko nële. ndeymaane mi lu ciy pexe. na enquête bi gën a dem rek parce que nag Ndiaye am na ci affaire yu sew suuf nag yoo xamante ni am na ñuy wax wóoru nag ñi naan sacrifice laa ñi naan xale bi dafa ragaloon wax seen école la ko waxee yëpp daal na gën a wóor ñu teg ko ci taabal ji cent 157 17 bi ngi fi lu lëndëm mu leeral ko 77 157 17 passe partout l'homme de Bercy. allo présidence. l'homme de Bercy. dama toog ba digi